alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb talaatay tey jii la ca gën a fës lamb jox na kàddu may sa njaay vice président bu li nga xam si ni moo di recours Sa Thiès bi ñuy wax ne daa génn ni ki démb bañ jox Sa Thiès victoire bi ma nga xam ne ne loolee mënta ne ndax rete recours dina toog lu toll ci 48 heures yoo xam ne si ni dañuy toog di ko jàngat di ko caytu waxtaan ci muy commission discipline bi ak yu mel noone ngir ñu door cee jël verdict suñu lam mu ñu xam ne kon recours ba génnagul Sa Thiès ma ngay en tout cas lu ma di xew moom daad daan rëg-rëg nañ ko jébbal li nga xam ni moom la yeyoo mu di drapeau am ak victoire am rëg-rëg ma ngi koy xamal ne Sa Thiès gëmal yàlla man maa la daan te man mii man maay làmb man rëg-rëg fa ma teg sama bët jéggi na la ndaxte li nga xam si ni mooy titre roi des bi moom laa bëgg a jël ñu ñëw ci keneen Basirou Babou ménagère bu Sa Thiès déposé na léegi li nga xam si ni moo di recours ba démb bi une heure la ko déposé ci kanamu CNG ma ngay xam le ne arbitre bi dañ ko war a suspendre dañ ko war a aj dañ ko war aj lu toll ci trois ans ndaxte li mu def du dëgg du yoon gis ko am ndam nga di ko jox defet suñu laamu ma ngay ñëw ci Palla Diop ménagère bu Reug Reug ma ngay tiré ci kaw ki nga xam si ni moo di Moustapha Gueye ma ngay xam le ne na mu taxawee ak na mu waxee loole waru ko ndaxte moom dafa jiite njabootu làmb yor écrit ba pare kon am na noo xam ne waru koo waxee même bu amee lu mu gis sax am na nu mu ko war a jàngatee am na nu mu ko waaye taxawaayam rafetlu ko ñoo bokk association waaye na mu taxawee rafetlu ma ko ci mbir yi suñu laamu ma ngay ñëwaat ci Sa Thiès Reug Reug ba tey li ñu xamal ne macha allah arène nationale duy nañ ko ba mu fees dell muy côté Sa Thiès di côté ki nga xam si ni moo di Reug Reug waaye suñu laamu ma ngay xam le ne ay coow amoon na fa waaye police yi tamit jàpp jàpp nañ ci liggéey bu baax a baax ndax dispositif sécuritaire ba fa nekkoon ñoo doon gën a yombal liggéey bi ba ci biir géew bi sax ña nga fa woon ñoom policiers yi lu lañ fa indi woon suñu laamu mu ñu xamal ne Siteu yëngal na arène national ñëw soutenir jàppale ki nga xam si ni moo di xaritam di Reug Reug ñëw soutenir ko bu baax a baax keneen ku ñëwoon ca làmb ja mooy Zarko suñu làmb mu ñu xamal ne indi na fa coow ndaxte waa kër Boy Niang la doon jàppanteel ñoom Zambala ndax dafa ñëw di leen waxal ne Modou Lo Modou Lo di yuux Modou Lo ca kaw waa kër Boy Niang bëgg koo attaqué suñu làmb mu ñu xamal ne kii di dégool ak ki nga xam si ni mooy Bourkhane Wade manager bu Boy Niang ñoo dem waxtaan ak moom ngir coow li mën a fay suñu lam xamal ne kon coow amoon na foofee ba policiers yi sax ñoom it na nañ ci liggéey boobee suñu lam ma ngay ci yàqum siège yi nga xam si ni amoon na tamit ca làmb ja nga xam ne si ni supporters ñoo ko doon sànni ne ñoo nekk ca suuf suñu lam mu ñu xamal ne muy loo xam ne lu ñuy déplorer la suñu lam mu ngay ñëw ci Balla Gaye 2 moom it ki nga na ko faa agressé mu yoroon ci loxoom ki nga xam si ni mooy coach koy dab daal di koy kaj yi suñu laamu mu ngay ñëw ci Doudou Sané jarbaatu Eumeu Sène bi suñu laamu mu ñu xamal ne fi mu toll nii palmarès am mi ngi ci 4 combats 4 victoire ci wàllum arène bi kii di Njaay suñu laam mu ñu xamale ndax la mu waxoon dina ko def ne bu kii di Sa Thiès daanee rëg-rëg lekk ab xaj suñu laam mu ñu xamale ndax bu CNG jëlee victoire bi jox ko kii di Sa Thiès ndax Xaarim Njaay loolee mu waxoon dana ko wàccoo suñu laam mu ñu xamale promesse boobee ña koy xaar ndaxte diggee boor la te Xaarim Njaay moo ko waxoon ki nga xam se ni moo di Amed Diop suñu laam mu ñu xamal na làmbam ju njëkk fii ci diwaanu Ndakaaru foofee ci adresse ngoor ni ki dimanche bii la woon suñu làmb muñ xamale moom Ameth Diop ci la njëkk a jël làmb fii ci diwaanu Dakar ginnaaw loole ñu sant leen gërëm leen jox leen dig daje ni ki suba incha allah